awrasani mawahibal akyaasi yaa man saqa suduura fi qiyaasi awrasani mawahibal نقي تقي سالع وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يزعن نبيه أديب صاعياء مهسب نسير لمن بالكفر والسلك يعلن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen jaare bu leen déggee bayit yu tedd yu sell yooyu nga xamante ni Serigne Ibrahima Sarr xasida yëkkati na ko ñëpp seen xel dina dem ci jataay bu tedd bi jataay bu sell bii jëmm yi ku leen gis ci waxtu yu ñu toll sa xel dina dem ci lu bari waaye sa xel dina dem ci tool yi Serigne Saliou Mbacké yi yi nga xamante ni si ah kenn dootu ko fàtte ba adduna tukki muy xel koom di tool yi nga xamante ni si xam ngeen ni bu waxtu wi temb bu jotee ñu ngi waajal nag liggéey bu sell boobu di liggéey bi Serigne Seex moom Serigne Saliou Mbacké di amal fële ci tool yi xel ko jëmm yi tedd yi nga xamante ni ku gis ah sëtub sëriñ Touba bii ci sunu ginnaaw fa tabarakallah sa xel dina dal muy sëriñ Ateex moom sëriñ Xalil moom sëriñ Moussa May moom maam Ceerno Ibrahima Daamal Daaru bu nu wootee waxtab xel ko mu ñëw toog di ko def nii at mu war naa mën a nekk waaye daan ànd nag ak mbokk mu baax ma di sëriñ Saalihu Mbàkke manu fayee sëriñ Saalihu Mbàkke moom Cheikh Mahmoud Lamine Baara nga xamante ni daayira Mouwahiboul Akyaas bi nga xamante ni si bu tooli xel ko mi ñëwee nu ànd koog jëwriñ sëriñ Moustapha Lo moom alaaji Moustapha Cissé moom sëriñ Touba mu ànd ko nag baaxu ko ànd ak ñi mu koy àndal ñi nga xamante ni ñu ngi leen gi ci image yëpp xam naa ci kanam tuuti incha allahu rabbi xam ngeen liggéey bi nanu ko daan wéyalee di ko doxalee at nii nag ren jii xam ngeen ni mooy quatrième édition incha allahu rabbi dinañ jox alaaji mini kaar Omar Gueye kaddu gi mu ñëw def ci leeral yu am solo bu nu fa jógee dinañ jox ki nga xamante ni si mooy Serigne Assane Seck mu woo ñi nga xamante ni si moom lañ daan baaxawoo di ànd ak ñoom ñu ay kilifa di ay taalibey Serigne tubaa yu farlu yoo xamante ni liggéey bi Serigne Touba rek moo leen ñor bu ñu ci jógee dinañ ki nga xamante ni mooy jëwriñu liggéey bi di ah Serigne Moustapha Lo moom alaaji Moustapha Selo di jëwriñu liggéey mu leeral wax ni ñu daan def liggéey bi lépp inchaa allahu rabbi fas yéene nag togg togg yu mucc ayib yoo xamante ni yu sell yu baax yoo xamante ni buñ koy bëj tool daan ko mën a xewloo incha allah xam naa ni sëñ Moustapha ak sëriñ Omar bu ñu ñëwee dina gën a leer ci leer ci anim wu sell wu rafet kon nag dañuy jël kaddu gi jox ko ki nga xamante ni si mooy Omar Gueye Minicar kon bisimilah kaddu gaal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom julli ci yonentam bu tedd bi ñu dollee santaat Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke di ñaan yàlla suñu borom fayal ñu ko ngën gi fay di ñaanal mbooleem njabootu Serigne Saliou Mbacke gi mu fi bàyyi di jiital Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke sa Sawaalo Mbacke moom Serigne yu Mbacke ak mboolem seeni i rakk njaboot gi muy góor muy jigéen taju ci Serigne Saliou Mbacke ñu ngi leen di ñaanal kenn ku ci nekk suñ borom guddal sa fan wéral la kàttanal la ba naal yi nga xam ne sa waajur yu bàyyi woon na ko fi muy Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke ñu àggale ko ginnaaw bu ñu jógee ci loolu ñuy teewaat rek ci jataay bu rafet bi nga xam ne dañ ko ànd ak suñu mbokk taalibe yii ñu bokkal sëriñ bi boo geesoo di nga ci gis euh, sëriñ Atex Mbacke di kenn comme ni ko sëñ Lamine Seck waxee. ñu fas yéene demaat xel xelkom jaajuwaat fas yéene ko defee nañ ko daan defee le 25 incha allah ci kàttanu yàlla ñu fas yéene départ mooy départ bi le 28 le le 28 incha allah lañ fa yéene togg mbana yu bari comme ni ñu ko daan toggee fas yéene koo dugal ci daara yi dugal ko ci dal yi jotale ko mbooleem ñi nga xam ne jo fexe ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko fu ne gox yu fasantikoo ñëw ci liggéeyub Serigne Saliou bi ñu fas yéene leen fekk foofu bend leen. ànd ko jëruñ ju tedd jii di Moustapha Lo comme ni mu ko daan defee ñu fas yéene teewaat rek di santaat sëriñ bu baax a baax a baax di ñaan yàlla suñu borom àgg lañu ci bañ àgg ci jàmm ñu def ko nañ ko daan defee. di fàttali ne mboolem ndongo yi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacke fu ci waay nekk ci réew mi ak bitim réew ñu takkuwaat te xam ne mbàcc mii nga xam ne moom la ñu sëriñ Cheikh Mbacke Saliou moom sëriñ Saliou jox ñu war koy def ñun ndongo yi nga xam ne ñoo nekkoon ci keppaaru sëriñ Saliou Mbacke ñuy fàttali rek ne fépp fu nga nekk na nga bàyyi xel ne liggéey bi mooy sab liggéey ñu àndaat ci def ko nañ ko daan defee euh, bàcc gerte gi jëri ko tàqale gerte gi ak ngooñ mi roñ gerte gi roñ ngooñ mi ci anam ba mu gën a selle def ko ci anam ba mu gën a selle euh, sàkku ci ngërëmul sëriñ bi di ñaan yàlla suñu borom ñu àgg tab dem ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin togg yeet ñu ngi ciy fàttali nu mu gën a selle lañ ko bëggee kuy jox Serigne Touba da ngay jël la nga gën a bëgg ak la nga gën a fonk ñu def ko ci anam ba mu gën a selle jëbal ko sëriñ bi jëbal ko njabootu Serigne bi sàkku ci ngërëmul Serigne bi di ñaan Serigne bi defal ñu ci tawféex mbooleem ñi ci tàbbi ak ñi nga xam ne am na nañ yéene tàbbi ci yàlla suñu borom defal la tawféex yoo xamante ni bu déwénee incha allahu rabbi di nga ko fekke def ko ci anam ba mu gën a selle ñuy sant di gërëm rek mboolem ñu fi teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar di nuyu mbokki taalibe yëpp comme ni ñu ko waxee noonu rek euh, ñi fi njëkk a jaar ñëpp ñi ngi jëm ci bis boo xamante ne ni yaakaar naa ñu ngi ci quatrième édition euh, di liggéeyub xelkom euh, liggéeyub xelkom bi nga xamante ne nii Serigne Saliou Mbacke radiyallahu anhu yàlla ñu ko yàlla fayal bàyyee ko doomam ju baax ja Serigne Cheikh moom Serigne Saliou muy liggéey boo xamante ne nii dañoo jàpp ne ñun ndaw ñi depuis 2007 ba léegi war nañoo am participation bu ñuy def ca xel xelkom ja ñu tàmbali ko depuis 2017 di dajale suñuy wërsëg euh, heure bu ñu àggee ci mbàcc mi nga xamante ne ni dongay tar bi ñoo koy liggéey euh, ñun ñu dajale suñuy wërsëg euh, ni ñu ko waxee léegi maa ngi ciy jéeg lu baax Serigne Atex Mbacke soo leen ko gisee muy sëtub Serigne Touba waaye yàgg ànd ak ñun liggéey bi ak jëwriñ ñi ngeen fi gis yëpp ñu toog kenn ku ci nekk day jëwriñ am na jëw ci jëwriñ yoo xam ne ña nga ca Touba jëwriñ ji jiite Mawahibul Akya Serigne Saliou Mbacke moom Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacke ba démb ñu ngi ciy waxtaan ci programme bi noonu lañ koy ñoom lañ koy fas yéen di àndale at muñ ci àggee ren nag ñu ñëw ci quatrième édition bi quatrième édition bi yaakaar naa suñu départ mercredi euh, le vingt cinq ñun ñoo ngi takk suñuy bagage euh, tàmbalee liggéey bi ci àjjuma ji ci le vingt sept ci Touba fas yéene togg le vingt huit togg gi jàpp naa ne sëriñ bi teg na ci loxo ndax année bu njëkk ba ñu ngi ko tàmbalee woon ci vingt cinq mbana ba daaw at mu mujj mi di deux mille dix neuf ñu ngi toggoon soixante cinq mbana kon ñu ngi jëm ci quatre vingt mbana di juróom benn di juróom ñett fukki mbana ñu fas yéene koo togg ci fukki togg yu bokkul façon togg yu bokkul kon loolu jàpp naa ne suñ ci accès jot na képp koo xamante ne nii daanañ ci ànd ak yow ñu soññ la ci yëgal la ko kon mbokki taalibe yi liggéey bi mi ngi noonu ce samedi 27 la ñuy waaje ca Touba di vendredi fas yéene togg ci euh, samedi ji di 28 yóbbu ko euh, xel koom fas yéene koo àggale ci daara yi ak ci dal yi ni ñu ko doon defee at mu jot kon jàpp naa ne Serigne Assane Seck dina ñëw ci ñi nga xamante ne nii ñoom lañu daan àndal liggéey bi depuis ñu door ko 2007 ba suñ joon yàllay tey heure buñ ca àggee ñu yëkkati seen alal ak seenu ñaq jëf ca ak yéene jàpp naa ne Serigne Assane Seck kenn ku ci nekk dina ñëw fàttali la bis bi tudd sa kon ñoo ngi leen di siyaare di leen baalu te di leen baal di ñaanal Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi lool te wér njabootuk Cheikhul Khadim gépp it ñu yàgg fi lool te wér jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ak mbokk murid di daanaka duñ ñëwaat ci li nga xam ne moom la Sëriñ Mouhamadou Lamine Seck muy wax léegi ci appel bi ndax li ci ëpp solo jàll na ko dañuy jàllale rek mbokk taalibe yi nga xam ne ñooy soppe ak wëllëre yi ak mbokk yi nga xam ne kenn ëppale leen ci sëriñ bi te lu ñu yëkkati ci Serigne Saliou rek seen lépp ñëw ca ñoom rek lañuy ñuy jàllale fii. kon Serigne Saliou Mbacke wala Hadj Maodo Lamine Bara Falilou Serigne Galas Mbacke Kaltoum Serigne Iddaali Mbacke Serigne Galas Mbacke moom sëriñ Djili moom Serigne Fallou Serigne Fallou Mbacke transitaire Serigne Cheikh Mbacke Abdou Salam Massamba parking automobile Serigne Sidi Mbacke vice président maire Touba moom Serigne Abdou Assis Bara Galas Mbacke Cheikh Abi Serigne Makhtar Diène chef religieux Serigne bu Cissé opérateur économique président Moustapha Cissé Lo Abdourahmane Ba Por di kenn ci Serigne Saliou lool lépp luñ ko wooteel rek danaan sama jom sama yitte sama man-man sama lépp du ko fekk di nekk ci koo xam ne kenn la ci def ji Amadou Ba monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Diome di taalib yëpp Serigne Saliou Cheikh Abdoulou DG Bara Gueye Owel Alhaji Ja Bamba yi di responsable politique APR président Moustapha Seck borom iwil yande Khadim Dia monsieur Bassirou Diop taalibe Serigne Saliou Omar Top Abdoulahad Gise xéewal bu suteri taalibe Serigne Saliou Omar Top Cheikh Gaynde Abdou Khadir Jili Lo Cheikh Baas Yoro Kër Ndiaye Lo bu ko defee loolu mooy Sénégal diaspora bi nag Boy Diop ca Italie du ko am pëseef ci liggéey bi di ci kenn rek ak ku ñuy wax Mbacke sekk ca Espagne ak ku ñuy wax Abdou juuf Lo ci siwis loolu mooy góor ñi jigéen ñi ñu tàmbalee ci soxna Ndey Bousso moom soxna May Galas di yaayi daara di jàmbaar miin lii lool lool lool kenn du ko ci wax nañ koy defee soxna Musli sàll soxna Fatou Sidi nag dëpp ba liggéey bi tàmbaleek léegi day wax ni yëf yi sëriñ bi du ak mbokk du ak deret jom la ak taalibe ak Pastef ci ëpp ëppalewu ko ci lépp lu liggéey bu laaj rek waxtu ne daanal maa ngi ca kanam yàgg koo ànd ak ñoom yàgg cee def yàgg cee jëf kon ñu ngi lay fàttali bis bi soxna Faama Ndiaye madame Mbacké di jigéen joo xam ne moom it jàmbaar da ci liggéeyub sëriñ bi bawu ci waaram mu des kenn du ko ci baal waar joom la ci ànd ak Pastef ju mat sëkk sëkk sëkk di jàmbaar ci liggéey bi lool ak soxna Ndeye Guèye madame Cissé Lo di sunu yaay di ko xam moom it yaayi daara la boot na njaboot gépp gépp gépp gépp madame Ndour soxna Bali Jaxate soxna ma loo soxna Ami Galas Lo soxna Fatma Diop Touba 28 soxna Khadija Kan ak soxna Kebe mbaaloo di taalib Serigne Saliou nga xamante ni bii ah, ku ne xam na diggam ak Serigne Saliou ak soxna Adja Lo madame Guissé Pape Mbaye étincelle couture di taalibe di soppe di ko bëgg Serigne bi moom it ñu ngi ko ci woo di ci woo abi bi yaay ci Abidjan murit ba fa àgg dana xam ne yow mi Serigne bi la bokk yow di ko dund liggéeyu Serigne bi du bëgg kenn ku ko ci man ci jom ak pasteef noonu it la ñuy jàllewaat ci jigéen ñi ndax soxna Mominatou Kébé ku na xam na ne wenn way rek la bëgg am mooy way wu jóge ci waa kër Serigne Touba yi wala njabootu sëriñ Touba gi wala donge Serigne Touba yi mu cay bay waaram la mu man soxna walimati kebe it nee na mbirum Serigne bi du deret du bokk dangay jaay lépp jënd ko ak taalibe nekk ci seen wet ak soxna maam Faati kebe ñoom ñëpp ñu ngi leen woo incha allahu bi ci liggéey bi nga xam ne képp kuy gone baa ngay mag xam nga ni Serigne Saliou lebal na la loo xam ne mënoo koo fayu ndax da ngaa rek ni napp ci moom te léppam di yërmande kon bis baa ngoog mbokk yi woote baa ngoogu bu ko kenn tàyyi ah bu kenn yëguma bu kenn gisuma bis baa ngoogu wooteb xel koom a ngi noonu wooteb Serigne Touba ngi noonu wooteb Serigne Saliou ngi noonu Serigne Saliou nag ah ku ko lebal nag xam ngeen ni mu fay la ca bu la fayee nga xam ni fayeku nga liggéey baa ngi noonu ni ko Serigne Assane Seck wootee bokki taalibe yi xarit yi wëllëri am di jàmm yëpp taalibe Serigne Touba yi xamante ni fu nu wootelee Serigne Touba rawatina Serigne Saliou Mbacké seen alal seen doole seen jom seen pësteef dara du manqué dinañ ñëw ndax Serigne Saliou xam na ñoom xam nañ li leen Serigne Saliou defal muy mboolem ki nga ñi nga xamante ni dégg ngeen ko ñëpp ñu woo leen ci annonce bi kon bis baa ngoogu woote baa ngoog bu kenn la le cinq incha allahu rabbi moom la ñuy togg togg yi fële ci Touba fa seeni ko togg ci kër Serigne Saliou Mbacké moom Cheikh Mamadou Lamine Bara ànd koog daayira bi nga ko baaxu àndal ñëpp muy ndaw yi Touba di Mawaahibul Akyaas di ay ndaw yu am pësteef kon Serigne Moustapha Lo mi ngi woo ndaw yooyu mu ko baaxu àndal yëpp daayira bi bu kenn tay na ñëpp génn jigéen ñi ak góor ñi na ñëpp teel a ñëw kon liggéey baa ngi bu ko kenn tay noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba ku ci feeñ yàlla boo nëbbati te liggéey bi Serigne Saliou nag ku ci feeñ xam ngeen ni doo nëbb mukk ba àdduna tukki kon mbokk yi woote baa ngoogu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jëre jërëjën jëf ñu ñëpp nan maa si dëkk suñu loxo Serigne Ateex ñaan nu nu waajal bis bi ci tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nifaali wa yibqaayi wa fawsi bilaanan bi kawni qadimal mustafa tatabayanu